benn waxtu yi mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi bokk na ci li ñu fas yéene jukki tey jii li feeñaat ci tawat ji nga xam ne moom la ñu duppee Covid 19 téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom baa juróom-benn yooyu. wax nañu ne daal am nañu doomu jàngoro joojule ñaar fukki ak juróom-benn yëpp daanaka wax nañu ne ñoom it ci. wàllante bi la daañu ci dikk léegi yokk gi mu yokk nag ci diwaanu Ziguinchor am na fa juróom-ñeent yoo xam ne jot nañu ne tawat ji dal na ci seenu yaram diwaanu Ziguinchor nag ci wàllu tabaski gi xar yi xaw naa tane tuuti yokk waaye nag euh, clients yi lañ gisagul ngir ñi jënd xar yi euh, njëg yi nag mi ngi dox ci diggante fukki junni ak juróom benn jàpp juróom fukki junni xar yi kon fi ñu toll ni ba léegi mm, yombagul de euh, ci wàllu yi tamit li jëm ci ñi nga xamee ne dañuy jëm ci wàllu tabaski gi ah, gendarmerie liggéey bu mucc ayib bi ñu ci bëgg a def itam loolu daañ ci dalal ah, ci jeexitalu xabaar yi ah, commandant bi nga xam ne moo di eh, capitaine Alioune Ndiaye commandant de la gendarmerie fii ci biir Ndakaaru askan wi itam jàppale leen ci liggéey boobule ba léegi lépp nekk lu jàppandal eh, daanaka boo seetee itam loolu daan ci dikk léegi toftal ci tamit yeneen i xabaar. Maodo Faye jërë jëf bokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu ci xabaar yi dañ koy daal di doore ci covid 19 bi téeméeri nit ak ñeen fukk ak juróom yoo xam ne wax nañu ne gàddu nañ doomu jàngoro joojule ñaar fukki ak juróom benn kët lu mu gàtt-gàtt wax nañu ci wàllante bi la am na ci nag euh, ci fukki diiwaan wala fukki gox yoo xam ne yi ca loolee ca la amee docteur du Ndiaye ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukki test yu ñu def téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ciy cas contact mooy malade yi nga xam ne feebar bi fiñ ko jëlee mooy dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci ka communautaire mooy ñi nga xam ne fiñ ñu jëlee feebar bi dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu nag mbaaw am na ci ñeent Kër Masaar am ci ñett Géejawaay am ñaar Mbuur am ñaar. Pikine am na ñaar Touba am na ñaar Bignona am na benn Dakar Plateau am na benn HLM Grand Médine am na benn Kanel am na benn Kaolack am na benn Kédougou am na benn Mbacké am na benn Njaxirat am na benn Yëmbal am na benn Tivaouane am na benn Ziguinchor am na benn juróom benn fukk ak ñaar si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ñeent fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ci service de réanimation yi benn malade ñàkk bakkanam ni ki démb alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ci hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñeenti junni ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn kaa ci ñooñu juróom-benn junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañ téeméer ak juróom ak juróom-ñett ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et l'action sociale mu ngi ñaanal suñu mbokk boobu génn àdduna yàlla xare ko àjjana di masawu seeni mbokk di ñaanal aussi malade des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale di ñaax askan bi ñu gën a sàmmoo ak digle yi nga xam ne joxe nañ ko mooy toujours di jëfandikoo seeni i masque di raxas seen i loxo mais également saa bu ñu demee ci bërëb bi nga xam ne dañuy tase ak mbooloo yu xaw a takku ñuy bàyyi lu toll li mètre ci képp ki nga xam ne mu ngi sa kanam wala sa wet wala sa ginnaaw mooy li ñuy woowee distanciation physique ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. li aju ci wàllu taw ji ni mu yokkoo ci diwaanu Ziguinchor am na ci juróom-ñeent yoo xam ne yi daanaka ab wàllante la ka ñeent fukk ak ñett yore doomu jàngoro joojule Ignace Ndeye. ak ñàkk respecté yenn ci mesures yi bàyyeeku na situation bi gën a jéggi dayo fii ci diwaanu Ziguinchor ba tax na euh, doomu jàngoro bii di coronavirus mi ngi wéy di law fii ci diwaan bi ci ay anam yu doy waa ci jeudi bi rek jàpp nañu ni Ziguinchor am na lu toll ci juróom-ñeenti cas communautaire ay cas positif coronavirus yi nga xamante ni euh, ñu ngi leen di am bis bu nekk fii ci diwaan bi ñu jàpp ni sax ci ñaari ay fan toll na ci lu euh, toll ñeent fukk ak ñetti cas positif bokk na ci trente six euh, cas communautaires yi nga xamante ni Ziguinchor am na ko loolu nag jaaxal jamono yi ñi nekk ci waa kër docteur ñoom ñi nga xamante ni ñu ngi artu nekk ci jaaxle bu tar euh, juróomi malaat yu ñu testé négatif ñoom génn nañu tey ci centre de traitement yi nga xamante ni mooy dalal malaat yi te nekk ci hôpital régional u Ziguinchor ak fi nga xamante ni mooy stade Aline Sitoé jaata toll nañu tey jii ci ñeent fukk ak ñaari malade yore jàngoro bii di coronavirus yi nga xamante ni jamono yi ñu ngi leen dalal ci centre de traitement yi ni mel bokk na ci sax juróom-ñett moom eh, ci seen kër lañ leen bàyyi di leen saytu di leen faj ba tax na feebar bii di coronavirus mi ngi law corps médical bi jaaxle lépp nag eh, ci eh, yenn ci dumm yi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy eh, def ñoom ñi mel ni faalewuñu yenn ci mesure barrières yi rawatina sol wàllu masque ba tax na sax ñu bëri jàpp nañu ni war nañoo indi rigueur gën a fësal li nga xamante ni mooy application yenn ci mesure barrières yi rawatina sol masque pour dàq li nga xamante ni moom mooy virus bi su fekkee ni mënuñu ko génne completement ci diwaan bi ñu jàpp ni jamono yi mooy feebar bi mu ngi ciy gën a law ba tax na mbir maa ngi jaaxal nit ñi Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Eh, Ignace Ndeye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wàllu foofu sax fi la ñuy daal di desandi ba léegi ca diwaanu Ziguinchor ndax itam wàllu xar yi fii nu toll nii daanaka wax nañu ne eh, moom ba léegi daal eh, xaw naa tane ni tuuti ci lim bi waaye nag clients yi la kenn gisul xar yi njëggaa ngi dox ci diggante fukki junni ak juróom-benn ba juróom fukki junni benn sel kan fuut yi. waaw waaw Maodo Faye maa ngi lay fay euh, ni nga ko waxee noonu la fii ca euh, daral bu Ziguinchor nekk euh, bi nga xamante ni moom moo gën a mag te nekk ci quartier Alwar fi nag xar yi ñu ngi tàmbale nag di ñëw doon ay am na ay camions yi nga xamante ni daal di nañuy wàcc depuis barki demb jàpp demb ba tey waaye nag ba léegi sore na lool li nga xamante ni moom mooy prévision yi ñu yu ñaar fu ak ñetti junni yi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci biir. Euh, diwaanu euh, Ziguinchor leneen li nga xamante ni tam mën nañ ko nemmeeku ci daral bu Ziguinchor mooy euh, maanaam kiliyaan yi dañuy ñëw rek di laajte ba pare daal di dellu am na sax benn client bu ñu dajel sant Djiba moom nag euh, buñ ko tàllalee sunu micro moom nee na euh, dafa ñëwoon ngir jëndi xar waaye nag euh, li ni mel du mën a antu ndaxte li nga xamante ni moom la yor ci kopar ak li nga xamante ni moom lañ ko wax ci njëg dafa daal di wute ba tax sax mu naan moom daay ñibbi daal di dellu siwaat ci fan yi di ñëw ngir mën a xaar njëg yi wàcc njëg yu seer yooyu le nag buñ ci taataane kaddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat yi ñoom nee Euh, seeraay bi euh, lenn lenn lu ko waral lu dul euh, njëgu transport bi waaye tamit aliment bi nga xamante ni moom la ñuy jox jur gi dafa daal di seer kenn ci ñoom sax di wuyoo ci turu Ka muy wax ni léeg-léeg nag ñi nga xamante ni ñooy ñëw jëndi dañuy yor li nga xamante ni dafa néew lool ñu bëgg ay xar yi nga xamante ni seen njëg dafa weesu li nga xamante ni moo nekk ci seen poste donc li ni mel la fu mu nekk nii Ah, ci daral bu Ziguinchor Maodo Faye foofu nga xamante ni nag ah, donte ah, xar yaa ngi tàmbali di ñëw waaye nag ba léegi jegewul li nga xamante ni moom mooy prévision yi te clients yi ba léegi nag taxu leen bëre ci biir daral boobu le Maodo fay jërëjëf euh, jërëjëf Père Michel Kanfoudi di aju ci wàllu jamono yi ñu toll ci jublu tabaski gii ak kaaraange gi gendarmerie ñoom ñu ngi taxaw temm daal ngir aar askan wi ak seen alal itam ak seen ay ay ay bien ay seen ay jumtukaay ba tax na fii ñu toll nii ñi ngi def seen kéemtal kattan kattan ba fenn fu ne euh, ci goxu Sénégal yi ñoom ñu nekk fa daal di di xool bu baax a baax ak nemmeeku euh, capitaine Alioune Ndiaye commandant bu gendarmerie fii ci biir Ndakaaru am na sax jokkoo gum ci jokkoo ak El Hadj Malick Ndiaye. ci waajal tabaski bi bi am nga gouverneur génne na benn arrêté boo xam ni mooy ci ci euh, ci bu fekkee Dakar. bi nga xam ni fépp fa lañ autorisé pour ñu def fa point de vente officiel léegi bi ñu jotee liste boobu ñun jël nañ ko point de vente bu ne déployé nañ fa ay gendarme pour ñu koy say ñu koy wattu guddi ak bëccëg gànnaar bi dañ fay nekk bëccëg guddi gi it am na ñu fay fanaan léegi disposition yooyu lañ jël ñi nga xamante ne nag bokkuñ ci six points de vente officiel ñooñu tamit bàyyiwuñ leen parce que également unité territoriale muy brigades yi ak poste yi dañuy def li ñuy wax ay patrouille de sécurisation te ñooñu it dañ leen jël en compte dans le cadre de ces patrouilles beneen aspect bi aussi mooy li tabaski buy ñëw ñuy yónnee xaalis ak ñi jot xaalis dina bari moo tax lépp luy point d'argent dañu leen di sensibiliser d'abord ci mesure yi ñu war a jël nga xamante ni ñu bañ a bàyyi xaalis bu bari ci seen point de vente yi mais aussi tamit ñuy waxtaan ak ñoom te di leen gën a jege di leen gën a bàyyi xel suñu patrouille pour sécuriser leen beneen aspect bi aussi mooy période bi nit ñu bëri dañuy déplacé wu dem de ñëw bi tali bi day faral di xat moo tax am na ay dispositifs de régulation yu ñu teg pour faciliter dem bi ak ñëw bi ci biir Dakar ci circonscription gendarmerie beneen point bi tamit moo xamante ni ñi ci bëri Dakar ñu bëri dañuy dem feete ki ci biir région yi donc samba booy yu bëri dañuy wuutu seen ginnaaw taa ci seeni i kër dévaliser seen i appartement yooyu tamit ñu ngi koy bàyyi xel ba bu ñuy def suñu mission ci tali bi kuñ ciy gis ngay déménager ci période bi dinañ la taxawal ba leer lu ndax bagage si yor yàq moom am déet. waa instant yi ni opération bu fekkee à Dakar. day engage personnel unité territoriale yëpp ak euh, lu war a mat ñeenti escadron yoo xamante ni tamit engagé na leen escadron boo xamante ne ak ah, bu ci nekk mën na soixante quinze personnes ñoom ñëpp ñu ngi engagé ci opération yi. li aju tamit euh, fii nu toll nii euh, ci rek tabaski gi ak ni ñu ko war a mën a defee kenn rek mën na kilifa njaboot mën naa reyum xar yóbbaale ñu baree bari kenn mën na mën ci njaboot loolu mën naa am imaam Amadou Makhtar Kanté. Eh, bu grande mosquée bu Point E dikkaat na ci fànn tabaski gi eh, kenn mën na reyum xar yéene waale ci ñëpp jokkoo ci xab seeli man woon waaw wax dëgg yàlla asli bi moom eh, liy cosaan ci tabaski mooy ki nga xam ni am na njëgu xar mu wut xaram ren di ngir tabaskeem loolu nag borom kër rek la nekk sunda ci moom même jigéen bu am moyen sax du nekk force ci moom parce que comme li ñuy waxee sa sallam doon na rey xar tabaski ñoom soxna ay ak yeneen soxna yi doon nañ am seeni i koom ak seen i mbir waaye kenn doon leen gis ñuy ñuy ñuy ñuy rey seen gàtt bopp donc kër gu nekk daal boom kër ga bu amee na rey xar pour kër gi léegi nag bu dee ay njël yu bëri la euh, du ñu mën a wax ne kenn rek mooy rey xar pour waa kër gi yëpp kon njël bu nekk borom kër gu nekk même bu ñu bokkee ñoom ñoom kër gu mag euh, bu amee xaram na rey xaram surtout que sax boo seetee ba seet euh, bisu feet la tamit euh, lekk ba suur baax na ci bu fekkee kenn rek moo rey xar fekkee kër gi dañoo xaw a bari Euh, mën na xaw a indi problème ndawal donc képp daal koo xam ne boroom kër nga te am njëgu xaru tabaski euh, lii cosaan ci yëf yi mooy nga rey sa xaru lii cosaan ñu rey xaru tabaski euh, waaye nag itam bu ko reyee mën nañ ci yóbbaale it ñenn ñi dafa mel na mbokk mi loolu la rotale ay kàddoom muy ay kàddu yu am solo li aju yi tamit ci wàllu njàng mi ak collectif bi nga xamee ne Aïssatou Guèye Ba moo fa demal. ñi euh, nga xam ne dañoo am waaye kenn kenn dëgmalu leen fenn maanaam kenn orienté wu leen ak étudiants yi nga xam ne tamit ñoom it dañ leen yóbbu ci privé yi ñu dem ak seen jubbu bopp ak étudiants yi nekk ci war am ay IVS ñoom ñëpp daal bëgg nañu wàcc ci biir mbedd mi euh, rek euh, dem sax ba palais de la république ba nga xamee ne daal wax nañu ne kilifa yi daal dañoo nopp ci seen i mbir dara li ñuy jàmbat anu amagul benn saafara collectif boobu nag moom ci seen bopp ñoom daal ñoo bëggoon a biir mbedd mi Aïssatou Gueye Ba Euh, waaw Maodo wax nga ko nag collectif boobu daanaka euh, collectif composé euh, étudiants bacheliers non orientés yi la cercle des étudiants orientés ci privé bi ak collectif machine ñi nga xamante ne étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk ca UBS ñoo ñoo doon jàngee ca UBS ak ñii di collectif étudiant victime AFUP Canada ak collectif étudiant INSEPT Diamniadio ñoom nag boo xoolee fu mu nekk nii toll nañ ci lu ëpp soixante mille et quelques. étudiants yoo xamante daanaka leen metti mooy euh, seen jàng bi ñuy jàpp di ko cax euh, seen njàng euh, bi munul àgg boobu léegi te collecte yooyu nag leen nee nañ li leen gën a metti mooy ab lettre ouverte boo xamante ne daanaka bi ñu ko bindee léegi yàgg na waaye ba tey mënuñu si am benn pexe boo xamante ne jóge na ci autorité yi li leen gën a metti tamit bokk na ci kii di ministre wala sax kii di président assemblée nationale di kii di président assemblée nationale nga xam ne daanaka ab lettre ouverte boo xam ne euh, mujjewul àttu ndax ñoom moom lim leen tontu mooy euh, moom lettre ouverte yi muy nar a jël mooy lettre ouverte bi jële bi jëm ci palais de la république ak ministère moo tax nag neneen duñu duñ ci dal te dinañ organiser ab marche boo dinañ sax génn ci tali bi euh, tabaski balaa tabaski di yegg si bu fekkente ne nag jëluñu seen revendication yooyu en charge bu bu ñuy fàttali nag euh, kii di UNAPES bokk na ci xeex boobu te nee na dina rek andi ay euh, dogal wala sax dina waxtaan ak kii di président Abdoulaye Fane pour ngir mu bokk ci xeex bi te diñ si dinañ si rek waxtaan ak kii di ministère yi te boo oyul sax di euh, una euh, UNAPES nee na dina rek trouver ay pexe dina rek euh, ut ay pexe ci solution yooyee jërëjëf ay Seetu Géey ba xam naa baati tubaab yi moom këfin tawarkal la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ca kaw nag ñu dem rek euh, daal di ko fay euh, daal fay daanu ji ñetti téeméeri ndaw yoo xam ne yi dañ leen waajal rek daal bu baax a baax waa Farang bu ko defee ñu mën a yore mbedd yi daal di ko seetal ak itam di génne suuf si ak yenn bërëb yi awa coow dindi suuf yi nga xamee ne si ñoom ñoo nekk ci tali yi nekk ci biir communes yi wante tam tàqale leen ak lépp loo xamee ne si dañ ko teg ci seen wet ba mu nekk lu leen di xatal def entretien wu li nga xam ne si moom moo nekk yoonu rang-rang yi ngir kat ba seenug dund gën a yàgg loolu day bokk na daanaka ci mission wu FERA di fonds d'entretien routier autonome ngir def liggéey boobu ba mu mucc ayib su ko defee ñu mën a soppi bu baax suñu xarkanamu bokk moomeel ay téeméeri téeméeri ndaw ci diwaan bu Kaolack ci département bu Guinguinéo ñetti téeméeri ndaw formé nañ leen jëlitam matériel yu mel ni bale fourche brouette râteau ak i polo de circulation jox ko ñi nga xamee ni si ñoom ñoo nekk communes yi ngir ñu door programme boobu nga xamee ni si kat dana soppi bu baax a baax xar kanamu bokk moomeel yi nga xamee ni si amoon nañu ay jafe-jafe yu rëy ngir xeex ak mbalit yi nga xam ne si moo nekk ci seen biir Mamadou Faye maire bu Ourour administrateur général bu FERA mi ngi wax liggéey bi nga xamee ni si mooy xaar ndaw ñooñu ñu tàggat ba pare. maire bi day ñëw ñu ne ko wax ñu ñaata kilomètre tali nga am su ko defee ñu xayma agent yi nga xam ne ñoo war a mën a nekk ci liggéey boobu pour que bu dee ci taax yi tali yi suuf si du ko nangu mbalit du fa dem lépp luy environnement tali bi aussi du encombré n'importe qui du ñëw rek occupé voie publique loolu yëpp cantonniers yi seen liggéey la tali yi dañoo war a set environnement bi aussi set tey boo xoolee ci département de Guinguinéo ñetti téeméeru xeleel formé nañ leen mais suñu liggéey yemul rek ci loolu boo demee ci gañeg tey piste yi fa nekk cantonniers yi ñoo koy liggéey tali day dund comme nit boo tabaxee tali da ngay wax ne war na am ñaar fukki at te du désensablement bi mais bu dee tali rang yi ñu koy wax piste de production cantonnier yi seen liggéey mooy ñu def de sorte que tali yooyu bu waree am pax rek cantonnier yi dañuy ñëw defar ko bu amee foo xam ne ndox dafa war a taar te ku ne xam na ne piste ak ndox andul cantonnier yi dañoo war a ñëw def ay fossé gasal ndox mi yoon pour que ndox mi wàcc tali bi dem yoonam bu amee nid de poule cantonnier yi dañuy wuti xeer ñëw fermé waat ko loolu la ñuy wax maintenance préventive donc loolu buñ ci dëkkee pax du am ci rang yi ndox du fa taa donc tali seen dund day yàgg téeméer ak fukk ak ñaari commune yoo xamee ni si nekk nañ ci biir réew mi day bokk nañ programme bi te nag ñi nga xamee ne si ñoom lañ ko gën a jagleel mooy ñi nga xamee ne si dañoo leru ak yeneen réew yi nga xam ne si moom la ñu digalool te mu nekk daanaka ab seetu ci suñu réew mi programme boobu nag dañ koy yeesal at bu nekk waaye nag mi ngi aju rek ci résultat yi nga xamee ne si commune bénéficiaire bu ci nekk am na ko Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour su def Awa Thiaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maire bu nekk ci département bu ngeen doonoon seen kàddu waxtaan ci Awa Thiaw ku ne xam na ni yoon yi am na yu Ageroute war a too waaye am na yu mairie yi itam war a toppatoo ni ñu ko waxee léegi soixante-seize mille kilomètres la daanaka seize mille yi la état di toppatoo kon soixante mille yëpp mairie yee ko war a toppatoo waaye ku ne xam na it ni communes yi surtout communes rural yi communes yi sax même chef lieu département yi amuñu moyen yu def li ñu war a def ci côté boobu kon buñ ñu ci boolee jox ñu nag moyens y ci wàllu salaire ñi ñuy utiliser xaalis bu ñu jënde matériel bu ñu liggéeyee dama di loolu mënuñu lu mooy rafetlu ko kon ci turu mairie yi département wu new yëpp maa ngi gërëm d'abord ki ñu war a njëkk gërëm mooy Macky Sall moom mi jox ay instruction kii nga xam ni moom la fi teg ne nag mu yaatal boole ci nag communes yi rawatina ñun communes yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw waaye nag kii nga xam ne mesure boobu moo ko rendre opérationnel muy Mamadou Faye ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax rafetlu nañ bu baax taxawaay bi moo taxit nag ñun duñ des ginnaaw parce que xam nañ li ñu jox lim ñu jox dafa bëri bi volet bu mu réglé d' abord dafa réglé sunu jafe-jafe ci wàllu entretien wu piste yi waaye dafa réglé itam sunu jafe-jafe ci wàllu emploi wu xale yi ñun maire yi ñooy état fi ñu nekk donc emploi wu jeunes yi nga xam ne ak jigéen ñi nekk suñu biir commune yi ñun la war bu ñu ko mënee kii nag mu ngi ñu ciy dimbali Fera mi ngi ñu ciy dimbali moo tax ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax. Euh, Fatou ke suñu euh, tas mbokk taskatu xabaar bi yal na yàlla yërëm ko ku xamoon liggéey bi la itam rawatina ak itam ñu nekk royuwaay rawatina ak euh, ndaw ñi nouvelle génération bi ni ñu koy waxee ak euh, ni ko jatu Cissé euh, waxee ne daal nekkoon na jëmm joo xam ne ji. bokk sax ci ñi nga xam ñoo di waa correct seen tribunal boobule ngir liggéey bi lépp lu koy yéwénalal Diatou Cissé taskatu xabaar la moom indi ci ay seede ci téléphone ab sa limaan woon. Euh, bëggoon euh, ab sa jaale képp kuy euh, nekk journaliste wala technicien rek de la communication sociale au Sénégal. doyen Kader journaliste la bu matoon place am ci compétence am ci xarañ bu mu am ci liggéey bi mais surtout pour lii xaw a rafle léegi ci suñu métier li ñuy wax respect de l'éthique et de la déontologie maanaam tënk métier bi ci charte yi nga xam ne dañ ko ci teg ci wàllu gore ak goreel loolu doyen Kader kenn fii ci profession bi mënul wax ne mus na ko wàcce euh, loolu moo tax bi ñu tegee tribunal des pairs maanaam benn kuréel boo xam ne dafay càmbar ñi nga xam ne dañoo wàccook yoon ak métier bi ñu nommé doyen Kader président mu téye ko di ci liggéey ñu nekk si ak moom mu di ñu fàttali di ñuy jàngalaat donc loolu mën naa ko ko seedeel di xaw a am tuuti rek déception ci journalistes yi particulièrement ñi gën a jeune li ñu xamul bu baax doyen Kader Diop vraiment mun na nekk royukaay pour ñuy doog dugg ci profession bi pour ñu ci yàgg pour ñuy aspirer dugg ci yëpp doyen Kader Diop royukaay la ci mën liggéeyam macha allah mun bind bu ma ko tegee ci aspect humain doyen Kader nit ku baax la ku oyof dëddu na àdduna doyen Kader doyen Kader soxlawul dara loo xam ne lu matériel la lu ñuy gis si nit soxlawul loolu montre bu ñuy takk sax finalement yoonam nekku ci man nag mu metti ma à un double niveau niveau professionnel sama modèle la woon mais ñëpp xam nañ ne sama xarit la mu won ma ko nag vraiment moo tax tey dama yeewuwaale am nouvelle bu ma naqari maa ngi koy jaal profession bi di ñaan aussi yàlla ci yërmandeem jéggal ko dajale ko àjjana ak jabaram bi ko won ginnaaw si mois de janvier bi passé yàlla boole leen ñu nekk-nekk bu rafet mu dem tekki ji ko tey te dama jàpp ne dafa choisir dem tekki ji jabaram ndax moo doon xaritam moo doon wéttalam maa ngi ñaan yàlla boole leen si àjjana yi gën a jërëjëf jërëjëf soxna Diatou Cissé ñu ngi lay eh, jaajëfal ci kàddu yu am solo yooyu la eh, ci wàllu xabaar yi ba léegi crise bi am fële eh, ca Mali juróomi njiit réew nga fa fas yéene bëgg a dem jàngat bi ak Babacar Samb njiitu réew yi lee di Mouhamadou Buhari bu nigeria Mouhamadou Issoufou bu Niger Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire Nana Akufo-Addo bu Ghana ak itam njiitu réew mi di Macky Sall ndax seeni pexe dana tax ba Mali daal di génn ci guuta gi mu daal di ne googule laaj daal di lëmbee jamono ji xelu paskanu pa Mali bu su région bi le ak itam bu àdduna wërngal këpp yooyu la juróomi njiitu réew seen pa dem foofee ca Bamako du benn yoon ngir tëralaat yeneen pa xaatimu ko déggoo yu yees waaye xool naka la ñuy amalaatee waxtu waxtaan ci conclusion yi nga xamante ni mission bu njëkk bu CEDEAO daal dina koy amal mu di defi yu bëri yuy daal di xaar yooyu la njiitu réew ba ca gën a fës bokk na ci aw déggoo daal di am ci recommandation yi nga xamante ni mission bu CEDEAO daal dina koy amal rawatina ñu daal di taxawal benn gouvernement d'union nationale ci nu mu gën a gaawee foofee ci réew Mali waaye lu jëm si coow lu daal di dippee ci résultat élection législative yi ñu daal di génn ci diggante weeru jàpp avril war nañ ko daal di saafara ci nu mu gën a gaawee ndaxte daal dinay doon li gën a yokk googule coow ñu daal di nemmeeku ca réew Mali Mali googule nga xamante ni daanaka ñeent fukki fan a ngi nii du benn pa gouvernement buñ fa daal di nemmeeku aw pëccëxoo ñu daal di koy gis itam ci seeni institution seen pa cour constitutionnel itam ñu daal di koy tas waaye di fàttali ne ci recommandation mission yu CEDEAO du benn yoon buñ si daal di nemmeeku démission bu kii nga xamante ni moo di seen pa njiitu réew di Ibrahima Boubacar Keïta te daanaka kujjeg politique googulee daanaka dafa mel ni dañ ko daal di tegandi waaye googule kujje lu ñuy sàkku jamono ji moo di njiital gouvernement bi di Boubou Cissé daal di tekki ndombal tànkam te li ni mel duñ ci négocier benn yoon di fàttali ne ba suñ joon yàllay tey du benn pa doxub jàmm bu daal di sotti foofee ci réew ma yi askanu mal Mali di ko yaakaar ci juróomi jiitu réew yi nga xamante ni daanaka ni ki tey ba fukki waxtoox benn jotee lañ leen doon xaar foofee ci bu Bamako ñu Ndeex Ibrahima Boubacar Keita waaye itam ak ku jëkk politique gi dajaloo ci M5 googule délégation war a jóge réew Mali bu juróomi waxtu jotee ba tegal farweeru simili waaye laata loolu fas yéene nañoo fësal seen pap bataaxal Sud FM ganu bés bi jërëjëf jërëjëf Babacar sam mbokk yi kon ki ñuy dalal moo di commandant bi di Alioune Ndiaye ci wàllu tabaski gi wàccaay bi kaaraange gi matuwaay yi ñu ci war a jël jokkoom ak El Hadj Malick ñu ngi ak capitaine Aliou ñu ngi lay nuyu. ma maa ngi leen di fay. yow nag yaay euh, commandant compagnie gendarmerie bu région bu Ndakaar euh, gis nañu nag euh, capitaine tabaski bi ay bés moom moo ci des ku wax tabaski wax wàllu jënd ak njaayum xar ak wàllu jóge fii dem ci yeneen dëkk yan matuwaay la gendarmerie jël ren jii nii. waaw ci waajal tabaski bi bi am nga gouverneur na benn arrêté boo xam ne mooy ci ci ci bu fekkee Dakar. fi nga xam ni fépp fa lañ autorisé pour ñu def fa point de vente officiel léegi bi ñu jotee liste boobu ñun jël nañ ko point de vente bu ne déployé nañ fa ay gendarme pour ñu koy say ñu koy wattu guddi ak bëccëg gànnaar bi dañ fay nekk bëccëg guddi gi it am na ñu fay fanaan léegi disposition yooyu lañ jël ñi nga xamante ni nag bokkuñ ci ci point de vente officiel ñooñu tamit bàyyiwuñ leen parce que également unité territoriale muy brigades yi ak postes yi dañuy def li ñuy wax ay patrouille de sécurisation te ñooñu it leen di jël en compte dans le cadre de ces patrouilles beneen aspect bi aussi mooy li ci ëpp tabaski buy ñëw ñuy yónnee xaalis ak ñi jot xaalis dina bari moo tax lépp luy point d'argent dañ leen di sensibiliser d'abord ci mesure yi ñu war a jël nga xamante ni ñu bañ a bàyyi xaalis bu bari ci seen point de vente yi mais aussi tamit ñuy waxtaan ak ñoom te di leen gën a jege di leen gën a bàyyi xel suñ patrouille yi pour sécuriser leen beneen aspect bi aussi mooy période bi nit ñu bëri dañuy déplacé wu dem de ñëw bi tali bi day faral di xat moo tax am na ay dispositifs de régulation yu ñu teg pour faciliter dem bi ak ñëw bi ci biir Dakar ci circonscription gendarmerie beneen point bi tamit moo xamante ni ñi ci bëri Dakar ñu bëri dañuy dem feete tabaski ci biir région yi donc samba yu bëri dañuy wuutu seen ginnaaw daaj ci seen i kër dévaliser seen i appartement yooyu tamit ñu ngi koy bàyyi xel ba bu ñuy def suñu mission ci tali bi kuñ ciy gis ngay déménager ci période bi dinañ la taxawal ba leer lu ndax bagage yi nga yor yàq moom am déet waa instant yi ni opération bu fekkee à Dakar day engagé personnel unité territoriale yëpp ak euh, lu war a mat ñeenti escadron yoo xamante ni tamit engagé na leen escadron boo xamante ne ah bu ci nekk mën na soixante quinze personnes ñoom ñëpp ñu ngi engagé ci opération yi. ci fi jënde ak jaay xel yi nga xam ne jàpp nañu kat gouverneur nee na woon mm, une trentaine de points de moo am foofu tam yan matuwaay lañ ci jël te dafay am nag mbooloo bu bëri moo fay faral dem ngir jënd ay xar waaw matuwaay yi mooy mooy yi moo wax léegi biñ biñ jotee liste bi boobu ak léegi daanaka biñ tàmbalee def na lu war une semaine ay gendarme lañ fa déployé yoo xamante ni site de point de vente officiel bu nekk am nay gendarme yu fa nekk ñooy liggéeyandoo ak comité de gestion bi léegi ñoom it aussi dañuy sensibiliser population parce que fi nit ñi daje dañoo nekk ci période boo xamante ni dafa dajeeg feebaru covid dix bi donc gendarme yi tamit dinañ ñaaxaale askan yi ñu sol seen masque ak jéem ak aussi di respecter les mesures barrières lépp ci boole waale ci xeex Covid 19 bi. tamit ñiy dem daral dañuy yóbbuwaale xaalis ñiy jaay xarit dañuy yor xaalis kon sàmba yi mën nañ dal seen kaw. yooyu yëpp dañ koy jël en compte ci dispositif bi pour saytu leen bañ mën a dem ci daral bi jënd si jàmm tellu seen waa kër ci jàmm ak seen xar te dara du leen ci fekk. wax nga tamit léegi lu am solo jëm nag ci wàllu mbas bi ñu tombeel maanaam wàllu Covid bi loolu tamit nag la gendarmerie war a taxawee. tem ci daral beeg ña fee ñëw pour wàllu takk masque ak mesure barrière est-ce que loolu dina yomb pour liggéey gendarmerie. waaw loolu moom askan bi dañ leen dañ leen di sensibiliser dañ koy tàmbalee d'abord ñun ci suñuy bopp ñun d'abord ñooy njëkk a adopté mesure barrière yi maanaam sol masque ak jël mesure yi nga xamante ni ñoom la ñoom la ñuy xeex mbas mi joxe nga xam ne buñ ko defee dina wàññi law mbas mi ñun dañ koy tàmbalee suñu bopp ba pare di ci ñaax population nga xamante ni bu ko defee ku nekk mën cee mucc. ñu mën a fa euh, tabaski bi fedd ko ci jàmm te du ànd ak law mbaas ku wax wàllu tabaski tamit wax wàllu dem beeg dikk bi yooyu tamit fan ngeen toll tamit yan matuwaay ngeen jël ngeen ci jël waaw dem beeg dikk bi mën na am ñaari fànn maanaam bu fekkee dakaar dem beeg dikk bi dina xat ci biir maanaam pour xëy dugg dakaar ak génn dakaar lépp luy tali bu nekk circonscription gendarmerie boo xoolee surtout heure de pointe yi day am ay euh, gendarme yu nekk ci tali bi ngir yombal dem bi ak dikk bu fekkee génn Dakar ndox ci autoroute bi wala ci route nationale bi peloton autoroutier bi mooy nekk ci autoroute bi escadron de surveillance routière moom it jox nañ la ay renfort élément yu doy yoo xamante ni dinañ mën a saytu tali bi ba nit ñi mën a dem di dikkaat te duñu am benn gàllankoor. waaw ndax dispositif boobu tamit la ñuy gis ci li nga xam ne rek moom moo ci région yi. waaw dispositif boobu mooy mooy mooy nekk ci mooy nekk ci région yi parce que région bu ci ne tamit dafay am spécificité bi day am loo xamante ni foog ñu jël ko en compte léegi nag commandant de légion yi nekk ak commande commandant de compagnie yi au commandement de la gendarmerie nationale joxe na ay instruction ñoom it pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ci seen ci seen secteur fi ñu nekk te aussi tamit euh, président génnoon na benn kayit pour oyofal saytu bi ñuy yi nga xamante ni dañuy euh, camions yi nga xam ne dañuy indi ay xar waaye loolu wàññi euh, vigilance bi parce que tamit am na ñoo xamante ni dañ ciy profité waale comme ni ñuy wax ñuy gàmmoog ñuy raas jéem bokkuñu. capitaine Aliou Ndiaye maa ngi sant la gërëm bu baax a baax. maa di fàttali yow yaay commandant bu compagnie bu gendarmerie bu Ndakaaru. Maodo Faye. jëf Assane ñu ngi lay Assane Thioune ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax benn waxtu moo dem ba fegoog ngeen fukki minit ak euh, juróom-benn kon nag foofu la xabaar yu bëree ñu leen di ñaanal jàmm